lillahi wa inna ilayhi fi musibatina hada waxluf li xayran euh, yi ñu ngi yëg dafa dal umma islamique waaye dal tarixa tijaan waaye dal kër alxaj abdullahi ñas bi sifa ama muy génnuk àdduna suñu wàjjur di suñu xalifa di suñu xarit di suñu wëllëre di xariti ñëpp Mawlaa si Ahmad Tidiane Ibrahim Niass ci turu xalif bu leew na ñaseen di turandooram si Ahmad Tidiane jox ñoom ñëpp Seydi Ahmad Tidiane yi lañ leen tuddee woon ci lañu yëkkati suñ kàddu njaal di famille lew na ñaseen ak mboolem rakki sëriñ bi di xalifa bi ak mboolem ay doomi magam ak mboolem muxaddam yeeg taalib yi. Papa Cheikh Ahmad Tidiane yi nag comme ni ma ko waxee sama njéewal benn. dafa nekk nit koo xam ne dafa yaatu dënn ubbeeku lu bare bare mu liggéey ko ci biir famille bi lam ci liggéey moo di lan moo di ñett ñi nga xam ne ñoo dox ak bokk bu nekk utilisé na ko ci utilisé ci làmmiñam muy wax lu baax. ci biir famille bi yëpp def na ko ci ñëpp di ko dégg beneen bi ci des mooy utiliser na loxoom famille bi yëpp kenn ku nekk def na ci moom loo xam ne fa tabaarakallaahu rawatina diggante ña seen ak lew na ah ñi fi def ñi fi jógee day def nañ fi lu rafet bay nañ fi waar wu rafet waaye bi mu ñëwee complété nañ ko bañ xam ne alhamdulilahi rabbil alamina euh, moo mujj ci euh, ci mbir mi loolu doyut waaye tim nag tànk gépp gan goo xam ne sax am na ko même bi mu nekkul xalifa muy gan goo xam ne gu kilifa la dana ànd ak moom ñëw ba fii ci xabru moom El Hadj Abdoulaye Niass jógee fi ñëw ki fi nekk xalifa mu ñëw siyaare si ak moom yooyu yëpp ak rafetal la waaye nit ku disposé nit ku bari xam-xam waaye nit ku tabe man ñii di wax ak yéen sama xarit la woon lool doom ji ma ko tuddee mag la ma nga ba turki bi mu am daa dëkkam bi ci daaru mbiteen li dalee xalif bi nga xam ne mooy premier xalifa bu maam xalifa ñi di alxaj abdullahi ànd naa fa moom dem fa mu yendu fa ba ngoon ñuy dexi gerte gannaaw loolu ki nekkoon xalifa am di sama wàjjur alxaaji babacar ànd naa rakkam alaaji ak man mii ñu dem fa yendu fa ba ngoon jot loolu lépp ak ubbeekum la loolu lépp ak mbaaxam la loolu lépp ak yëg nit la bala yëg mbokk gi dafa yëg nit ki Papa daal dëgg la mission bi fa amoon junnee at ñu ne ba de si ba demee ñu ne Papa Cheikh dàmm ak gaaw naa dem ndax li la koy war nag mooy turam bi kenn ku nekk am na lu ñu la tudd waaye moom Papa Cheikh ñëpp mooy seen bàyyi